merci sant naa ñëpp gërëm ñëpp raw na sama membre amical bureau bi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla sant naa ñëpp alhamdulilahi rabbi alamin merci beaucoup